quartier face bâtiment fi ci commune Gueule face Koloban tay ci xar kanam bu yees le xëyee gannaaw action citoyenne bi nga xamné ñi yéwo ci gox bi lal nañu ko ngir yeesalaat seen dëkkuwaay kurel bi di groupement international de solidarité doomu yaay astu nag te ëmb gox bi yépp nak moko sabab. doomu yaay astu ben équipe bi bu fi nekkoon dans les années quatre-vingt ñu nekkoon ben génération bon am suñu benn doyen bu len encadré won par la suite man ma ñëw encadré len bon vraiment ñu nek ñu màggandoo mais après légui dem na ben instant ñom ñu xool face Fass est à lui-même quartier dal nit ñi dal vraiment ni mu mel neexu hein ñu jël initiative maintenant mettre doomu face yépp ci biir groupe bi lool mo indi que euh, on a une centaine de personnes ñen ñi ñu ngi euh, ñu ci bari ñu ngi en Europe aux États-Unis vraiment des gens des jeunes volontaires ñu ne léegi dañuy jël en main seen quartier dootu ñu bàyyi kenn mu defal leen ko maintenant on a remercié on a rencontré le maire et qui nous a appuyé ñu ñu mën a def action yi. ñu initié affaire bi soo noo petit frère ñu ngi nekk seen grande sœur ñu nekk si bi à chaque fois dañuy bëgg lu mel ni am mais comme que lii seen loxo la jaar lu sant yalla, sant yalla parce que déjà tamit ñu li luñ yàgg la. mécanicien dañu occupé woon d'une façon anarchique ba nga xam ne koñ bi kenn boo amee gan sax da ngay rus sax mu jaar fa bu ñëw bu ñu àndee initiative bi duñu duñu mën a ñëw loolu nag leen jàpp ci rek en synergie ñun ñëpp man dama ne xale yi j'ai une association de femmes de 108 femmes ma dama leen mujjee mobiliser sax pour ñëw ñu cotiser dañ leen mujjee ngir cotiser wut benn action ñëw jàppale ñëw jàppale si leen. rue 43 bu Fass jano ak monument bu obélisque l'école yi fété ci wèd gi lu ci melni école élémentaire Oumar Ben Khattab Dia nga xam ne devanture ba ba file parking auto lañu ko defoon jëlé nañu fa lépp lu fa doon gàllankoor nekkinu askan bi fi yéwo mairie bi yag na désencombré mais ñun mosuñu ci bok tey ji ñun ñoo jël suñu euh, suñu responsabilité dem séti le maire aussi wax deug yalla mu ñëw ànd sék ñun andi ay moyens demb on était là jusqu'à quatre heures du matin dindi épave yeeg auto yi nga xam dañ doon gaare yépp du deug mais aussi on a prévu de de faire un suivi suivi bi nak ñun citoyens ñun mouvement bi ñokoy def en collaboration avec la mairie parce que tant que amul suivi rek li bëgg duñ ko am. bi ñu demee xool par exemple toilette yi école bi ñi seen yaram dafa daw gars ñu né vraiment ñun suñu ay Dom, suñu ay Jarbat.

liggéey bi dugal nañu ci seen loxo. suñu demee ba gis ay citoyen taxaw am taxawaay am fulla am fayda defar seen quartier loolu dañ ciy bég dañ ciy kontaan parce que tamit à travers le monde tey mënoo dem Europe am loo fay def di sànni si yi mbedd meek yooyu nit ñi ñoo lay wax dindi ko donc suñu demee ba nit ñi am conscience seen environnement ñoom ñoo ko war a yoreel seen bopp defar ko seen bopp loolu jekk na rafet na ma yokk ci ni tay environnement bi so fek so gisee ci mbedd mi ñu fay def ay cantine difa difa def ay réalisation suko population yi bëggul du am donc population yi ñoom ñooy accompagner commune bi parce que ñom ñoo mom commune bi suñu nekké maire tay ñom ñoo tax ñu nekk maire donc ñom seeni waaw lañu wara nekk ñun en fait. mouvement bi daf bok staff Serigne ndjay numéro 2 yaakaar naa bi mooy sama huitième combat té dañu yag suma son sumay mbir boobu bëreeguma

Nous il faut nous ce d'abord. lan pour quartier. et on a dit au maire nous, xam nous, nous, côté mécaniciens nous, ñu ñu nous, ñu ñu nous, nous, ñi nous, Nous, nous, le reste pour l'embellissement, pour le reboisement pour yeneen nous, suivi bi ñun dañ donc ñun on a été une force de proposition. du ci yam groupement international de solidarité doomu yaay astu mbëbëtam bokk na ci wane gox bi ni ab royukaay jaare ko nag ci benn modèlu dëkkuwaay bu ñu duppee QSP. danañ fexe ba ñun suñuy gox am ñeneen di ñëw pour hall, pour def noonu seen gox ça loolu lañ décidé parce que dafa jot dal, dafa jot quoi et puis affiché ko un exemple bon sensibiliser nit ñi par rapport la canalisation yi aussi il faut le dire.

zéro agression, propre et bien embellie. C'est les QSP qu'on vous propose, même avec le ministre du cadre de vie et de l'environnement. Pour que entre quartiers. On ne peut pas mettre derrière un homme un policier. La population, les poules nous dans un quartier. Si nous nous ñun ñu taxaw parce que nous suñu loolu mooy accompagner population les ngir lépp lu bëgg environnement kuréel bii di groupement international de solidarité doomu yaay astu nag ci ndorteelu weeru septembre bi ñu nekk nag lañu ko taxawal initiative bi le nag bokk ci yu njëkk amal te fas yéene ko wëyal ngir nekkin bu mucc ayib file ci fas bâtiment